wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa xalbi arshida bokk julli yi ma fekk yépp maa ngi leen di nuyu rawatina bokki taalibe yi toog ci baas bi di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadul Fadel mi toog ci sama wet di sama mbokk mën naa di ñu bokk lépp di sama wóllëre may am mbégte lool fekk ko ci jataay bi ak ànd ko ak moom di nuyu Cheikh Baba Guissé moom sëñ Abdou Khafor moom it di sunu wóllëre di nuyu mboolem ñi nga xam ni it ñoo taaral jataay bi di rakki Cheikh Mouhamadul Fadel may am mbégte it bokk ak ñoom jataay bi di nuyu mbooloo mi nga xam ni ñoom ñoo <clears throat> am yitte taxaw taxawaay bu mel nii ci barab bii ñu ko defee muy barabu xam-xam. am na solo ñu def ko waaye ñëw ba ci barabu xam-xam fàtte fàttaliku sa cosaan fàttaliku sa pas-pas jéem a góorlu ci lu koy dundal loolu dara ëpp ko solo kon ci seen yitte ju kawe moo tax at mu jot ñu jéema taxawal lu mel nii dundalaat ci xam-xam fàttaliku ci barab bi nga xam ni barab la bu marke histoire yoonu murit di Mbàkke Baari naka jëkk sax ci histoire réew mi Mbàkke Baari daf ci am histoire ndax ku ne xam na ni Mbàkke Baari dafa ay buur dañ fa dëkkoon kon am na ay jeexit yu bari na ne bi fa sëñ Tuubaa demee kon waxtaan wi dafa jëm ci tukkib sëriñ bi waaye nag des koy tënk ndax tukkib sëriñ bi buñ ko bëggee indi lépp dina gudd loolu ndax dafa bëri ay sew-sew bëri fuñ ci war a taxaw kon des koy tënk rek mu doon tënk boo xamee ni des nañ ci mën a jàng ay bind yoo xam ne dañ koy yóbbuloo ndax ak luñ fi mën di wax ak lu mu mën a doon waruñu koo yéem rek mu dugg ci sunuy nopp jàll ci baneen daal di génnaat li am solo ci nettali taarixu sëriñ bi mooy man cee jànge fii ñu toll ci sunu dund ndax alxuraan bi muy nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xissay yonent ya ko jiitu woon di ko wax fay sayduna ibrahim jaaroon di ko wax fa sayduna Moussa jaaroon di ko wax fa sayduna Yuusuf jaaroon nettali boobu mu koy nettali lim ci jublu mooy mu jànge ji tayam fan lay jaar ba réussir loolu la jublu ci nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali boobu mooy lim ni la xadd kaana fi xasasihim ibratun li ulil albab sa yi mu koy nettali dafa doon lu mu bëgg mu jànge ci teyam ngir am ak réussite kon taarixu Sëñ Tuubaa bu ñu koy nettali li ci ëpp solo du mooy ñu yéem ko wax ci ay kiimaan yéem ko mu jàll waaye solo si dëgg-dëgg mooy nan lañuy fexe ba ñun ñi ko yaakaar wala ñun ñi doon ay jullit wala ñun ñi dëkkee ci Sénégal te gën koo jege ñu fexe ba toppi tànk yooyu yi mu jaaroon ci jamono yu metti yoo yi ak fi li mu jànkonteel ba am li mu nan lañuy fexe ba ñun fiñ ci toll ñu jéem loolu yi loolu mooy solo waxtaan mu mel ni ñun fiñ ñu toll nag ci jamono ñaar fukkeelu xarnu ak benn yàqu-yàqu yi dafa bari te yàqu-yàqu yi ci bari li ko andi mooy ñi waroon a faje dañoo am jafe-jafe ñi nga xam ni ñoo war a nettali mbirum sëriñ bi ñoom ci seen bopp yi am jafe-jafe ndax ci façon biñ koy nettalee ak façon biñ koy waxee ñu ëpp ci ñoom waree su ko woon a présenté noonu waree su ko woon a joxe waa jamono noonu yi ndax Sëñ Tuubaa dund gi am. amul benn histoire bu mel ni histoire Sëñ Tuubaa ci kaw suuf dund gi mu am it nit mësu ko am li tàmbalee ci aadama ba fi tey mboolem ku fi mas a jaar tey ku am solo sa taarix mi ngi fi waaye taarix mës sa nettali ku mel ni Sëñ Tuubaa moom da koo xam ba waxal ko boppam daf ne ustu ayaatan laa turaa li xayri mujizatan baanat li usni xayri man dund gi ma am nit mësu ko am kenn mësu ko am moo tax tamam nag kiimaan laa ci biir kiimaan yi yonent bi sallallahu yi nga xam ni dafa yéex a feeñ dafa yéex ak si jamono gannaaw nag dundam googu kenn mësu ko am war na ñu koy nettali ci kaw suuf di ko nettali nit ñi di ko tasaare ci bopp nit ñi ba nit ñi xam bu ñuy wax ñàkk moroomu sëñ bi mooy fi mu jaar la nit mës sa jaar li mu def la nit mës sa def ci anam goo ko jàngat nag danga gis ni nit mës sa def li mu def te loolu da koy tàmbalee ci biir réew mi mu dëkk sëñ Tuubaa boo ko doon xool ci ni daan jaamoo yàlla nit mës sa sujjootal yàlla di ko jaamoo noonu ko sëñ Tuubaa daan jaamoo loolu mës sa am ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir nettalee ci Minanul Baaxil su fekkoon ni tax naa jóg waxtaan wi suñ ko waxee danga xam ne nit daawut jaamoo yàlla ni sëñ Tuubaa daan jaamoo yàlla nit ku mës sa nelaw nit ku xamee ni du lekk nit koo xam ne du julli genn julli mel ni njàpp mu julli ci ñaari julli nit koo xam ne waxtu wu day togg ki tawat te du tee la mu war a def ci jaamu yàlla yépp mu koy def nit koo xam ne ngir dundam mës sa jëfandikoo ñaari ñam ci genn anam muy kafe ak suukar wala warga ak suukar wala soow ak suukar nit koo xam ne kaana yett wi layaali wala yam dana toog lu yàgg te aw ñam du dugg gémmiñam nit koo xam ne li muy dund ci biiru dëkkam bi mu jaxasoo ak i noonam dara mësu mënta ko ci moom waxuma la sax di soppi ko waaye yére bi mu sol sax ak kaala gi muy kaalawoo mës sa soppiku ku mel noonu nag su fekkee ne dafa am ci biir dëkk biir senegal di dëkk bu tuuti damay wax jamono bu ne nii senegal ñëpp dañoo waroon a gëstu ji histoire sëñ bi suñ ko gëstu woon seenu bañ tubaab dina gën a dolli ko seen xeet tubaab yi dina gën a dolli ko seen wan gannaaw tubaab yi dina gën a dolli ko ndax tubaab yi liñ jànkonteel ci sëñ Tuubaa ak niñ ko bëggee woon a giimal éliminer ko ak fi ñu bëggoon a yóbbu ci njaam te loolu lépp sëñ bi def ci loo xamee ni kenn mësu koo def su ñëpp gëstu woon sëñ bi dinañu bañ tubaab yi bañ goo xamee ni rawatina français bañ goo xame ni seen dara du ñu sax waxuma laa di jéem a roy seen i jikko mbaa di leen jéem a nuru nuru ndax doonuñ ñu tekki dara moo tax nag loolu kon am na sans ci xam histoire sëñ bi ci boppam. portugais yi ñëw fi ginnaaw fii ñoom ñoom ñoom ñooñu tubaab yi ñu dellusiwaat fi yoonu ñaareel ci yoonu ñaareel boobu wii ñu ñëw nag ci la ñu amoon ay projet yoo xamee ni dañ ko bëggoon a réaliser projet yooyu nag moo doonoon coton bay mbayum coton fii ci île bu Gorée lañ nekkoon di ko di ko def diir boobu ñu koy def nag bi demee ba nga xamee ni réussir nañ lu bari ci seen mbay moomu sunu maam yi fi nekkoon ñu ci bari doon ay boroomi xam-xam booba ceddo yi dañ leen a sonal ñu jàpp ni gis nañ tubaab bi rek jàpp nañ ni suñ dawee dem ci tubaab bi dinañu am liñ bëgg dinañ am noflaay ndekete foofa mooy gën a tar foofa mooy gën a metti bi ñu dawee làqu ci tubaab bi bi tubaab bi réalisé ay projet ba mu jeex ci la tàmbali di weñaar loxoy maam yooyu di leen rey di leen jaay doole di leen def lu ko neex ba seen ngànnaay yi ñu amoon ak us néew yu jëfandikoo ko ak tubaab bi ba ñu bari ci ñoom tubaab bi rey leen faagaagal leen ba ñu jeex tàkk tubaab bi wëlbatiku jàpp jàkkaarloog buur yi fi nekkoon di xeex nag Maba Jaxu xeex ak Ahmadou Seck xeex ak Cheikh Omar Fouti xeex ak Lat Joor ñaar fukki at yoo xamee ni léeg-léeg Lat Joor gañe léeg ñu gañe ba Lat Joor niñ ko rey képp ku ñu reyut say pexe jeex ba atum 1864 ci lañ fi yabal gouverneur fédéral boo xam ni li ko taxoon ñëw ci réew mooy taal guerre ñu yabal ko fii ci Ndar biñ ko fi indee ci jamono boobu Cheikh Ahmadou Bamba booba ay atam bareegut ndax sëñ bi mi ngi feeñ 1853 te Faidherbe bu mi ngi ñëw Ndar 1864 waaye Faidherbe bu li ko andi woon ci Sénégal mooy taal guerre ndax bind na benn téere bu ñuy wax journal de la nettali na ci ne lim rey ci ay jolof jolof mat nañ junn te Faidherbe bu moom ba léegi Sénégal ñu ngi ko fiy tudd ay mbedd mel ni ku koy jox ndam ci li mu def ci biir réew mi te li mu roy ci sunuy maam kenn xamut num mu toll te loolu ndam la ko jàppe woon ba koy ndamoo ci biir mbindam moom yi moo tax sëriñ Touba bi mu demee ba gëstu dugg Kajoor dugg bawal dugg Chine gëstu réew mi ba xam li nit ñi soxla ba xam tubaab yi yàqu-yàqu yi ñu bàyyi ci biir réew mi ba mu ko leeree ba leer ba mu jël décision bi mu jël dafa wër kilifa yi diine yépp bind leen ay leetal leetar yi mu leen bind dalee leen a seen xalaat ci seen digganteem ak tubaab bi fekk booba jëloon na décision waaye nag li alxuraan digle ni na ngeen di diisoo loola waraloon mu doon diis ak ñoom leetar yi mu leen bind ñu bari ci ñoom daa fekk ñu dëppoog moom ab xalaat waaye nag amuñ ci ñoom solution mooy sëñ bi fas yéene xalaatut a jihaat ak ñoom ci ngànnaay ñu bari ci ñoom ne ko nag tubaab yi li ma li xam ba xam ko daal mooy jihaat ak ñoom ci ngànnaay moom mënta nekk ndax ay ngànnaay ñoom ñi ñoo ñu ko ëppale fekkoon na sëñ bi nag moom waaye ñee nag joxuñ ko beneen xalaat ci budul ay ngànnaay lan la war a jihaate ñoom waaye fekkoon na sëñ boobu jël na jihaatu xam-xam ak ragal yàlla te mooy jaamu yàlla fas yéene koo xeex ñoom kon dafa xam yàqu-yàqu jamono li li jamono manqué li réew mi manqué yépp mu doog a jëm ci xeex ak tubaab bi ci loolu foofe nag la wax ñëpp ni leen wa daaxiyan ilallaahi yomb na mooy woote jëme ci yàlla waaye bi isnihi moo ci jafe te seen waa jii da cee am biis isnihi mooy ndigalul yàlla yàlla ci boppam moo ko jox ndigalul mu woote jëme ci moom ndax woote jëme ci yàlla moom ku ne mën nga ko def waaye nag yàlla jox la ndigal ngir nga woote loolu mooy li jafe ay benn benn la ko yàlla may moo tax mu ni sama diggante tubaab dafa laaj ndox mu bari ak saabu bu bari ndax tilim na tilim goo xamee ni faw fóot ko ba mu set wicc waaye nag bàyyi leen maak ñoom dinaa ko def wala bu bëñ goo xam ni dana mokk rumbux te doo leen dégg-dégg moo tax ci mbind mi mu wax ni xat fakka kabla ni nag ginnaaw bu ñëwee moom mboolem jëng yi ñu doon jéngi suñuy maam di leen jéng fii ci gore jéng réew mi ci dundloo leen loo xamee ne waruñu ko woon a dund kenn mënta dund sa diine na ko war a dunde ba mu ñëwee jëng yooyu la daj dan leen léegi nag kon liberté am na ci mën a dund sa diine na ko na ko war a mën a dunde ak foo ko bëgg a dunde ndax moom jën na engagement ci jàkkaarloog tubaab kon nag xat bas sa fat la lor yi tubaab yi amoon it yëpp dina ko dékku ba nit ñi moom kenn sa yoon dootu ci nekk kenn ku ne mën ngaa demal sa bopp kon nag faddarul walla bu loolu lépp amee nag war na fu jaay moo tax bi mu demee ba woote yoon wi ba jóge Mbàkke Kajoor ba ñëw Mbàkke Bawol sañ ci Daaru ñëw Touba diir boobu yépp yitteem jenn la mooy gisee ak mustafa sallallahu alayhi wa ba gis gi mu ko njëkk a gis ci loo xamee ne du ay nelaw mooy ci fukki fan yi mujj ci lixtikaaf bi mu doon def ci kër sëñ Mbàkke Madina fukki fan yi mujj ci weeru koor ca la gisee yonente bi sallallahu alayhi wa gis goo xam ne du ay nelaw yi nag fa la jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa yoon wii ñuy bëgg a nettali ci nettali sëriñ Abdou Lahad xëy na jaayante gi bari na ay nettalin waaye ci nettali sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Lahad dani sëriñ bi bi mu gisee bu yonent bi sallallahu alayhi dani ko daa wax ak boromam ci déyaale googu yàlla la waxal ni ko xam naa ni fu sa màgg gi àgg leeru yonent bi sallallahu alayhi àgg na fa ma bëggoon nag ñetteel leen fu sa màgg gi àgg leeru yonent bi àggoon àgg na fa ma bëggoon nag ñetteel leen suñu borom ni ko wax nga lu rëy waaye nag inna allaha ala kulli shay'in qadir mooy yàlla lu mu deful rek moo mënta nekk waaye lépp mën a nekk waaye nag du maye dara lépp da koy jaay mu ne ko loolu kat li nga ko mën a jënde mooy ay nattu lay doon yoo xamee ni yu tar lay doon yu métte métti mooy juróom-ñetti fukki natt ak juróom yoo xam ne benn bu ne diis na diisaay boo xamee ni kenn mënu lu ko wax ba mu waxee loolu nee na sëñ bi yitteem kawe mënuñ ko liggéey boobu nag natt yooyu ma lay teg ji diirub juróomi at nga koy liggéeyee te doo ko liggéeyee ci biir réew mi da koy liggéey ca dangay génn réew mi liggéey ji ko ànd ak noonu yi ñu lay sonal te doo da sañ dellu gannaaw te onk sax doo ko sañ a def te onk yàlla nag bokkut ak onk nit nii ndax nit buy onk mën nga koo dégg waaye onk yàlla ca xol ba lay xol saa bu sa xol onkoo rek lépp loo jaayante woon yàlla dana ci dellu gannaaw kon la mu njëkk a jaayanteeg moom mooy juróomi at yooyu ba mu waxee juróomi at yi nee na ci tey sëñ Tuubaa sëñ bi jàkkaarloog moom waxaat ko ni ko dama bëggoon aqtaab yi ngay bindaat muy darajee aqtaab nga bind leen ci sama njaboot nee na suñ boroom tegal ko ci yeneen ñetti at muy juróom-ñetti at di mission yonent yàlla Muusa samaani yaa ay yëjël muy tukkib géej gi siiblaat nee na ci tey sëñ Tuubaa mu dellu waxaat ak borom waaye aqtaab yooyu mu doon wax nag yàlla may na ko ndax nee na ajaaba nii xayru baaxin fiihi xat taaba kulli war a xaabi maa lii xaada aq taaba ah, dara jee aq taab yàlla bindati ko ci kenn ku dul njabootu sëñ Tuubaa nee na ci itam jukaay mu jàkkaarloo ak mu jàkkaarloo waat ni ko taalibe yi ma yaakaar dañ maa doyloo ba jaamu gi yell ci yaw ak nañ ko waroon a defe doyloo gi ma doyloo tax na nañ la waroon a jaamoo sax da dafay des ma bëggoon mboolem jaamu yàlla guñ la waroon a jaam ak natt yi ngi leen ci waroon a teg yëpp nga teg ma ko te ñoom ñu wàcc Cheikh Blanc dañ loolu de taalibe bi bu ko dégg mu ne waratoo nelaw war nga koo jàppe soññe boo xamee ni waratoo am jenn yitte judul jaamu yàlla ak liggéeyam nee na sunu boroom ni ko liggéey boobu gànnaar ngay dem nitu yàlla ya fa ne képp ku la ci xool doyoo ko imaam la nga amoon lépp day yàq nga xam loolu yomba yomb la ku la ci xool dayoo ko imaam rek la nga amoon lépp yàq nanguwul nga jiite kook julli rek la nga amoon lépp yàqu moo tax sëriñ Bay Jaxate wax ni fabal nañu say yëpp teg ko ci kaw sayam ni cas mu ni santuma leen su lëf lu dul jaar yoonu ndigal bu fekkoon ni nit ñëpp kenn ku ne say jëf aw sayu matt la dañoo dajale say nit ñëpp jël ko teg ko ci kaw sayu mattu sëriñ bi mu yan sëñ bi ni santuma leen su lëf lu dul ngeen jaar yoonu ndigal ku ci bari man man lu mu lew lew lew lu mu jub jub du ko jural bis ndara lu dul mbugal nee na ku ci bari man man ba jël sëñ Tuubaa boole ko ak leneen la nga nekk lu mu jub jub lu mu lew lew nee na mbugal képp moom la lay mujjee jural moo tax dañoo war a booloo rek naa ko jëf ca kaw li kaw liggéeyaaleel na nit ñëpp fab seeni coono deg ci kaw kon jaayante ko gi mu jaayante borom nag ba mu ci jógee sunu borom xamal na ko ni ko jaayante gi nga jaayante li fekk bala mu mën a sotti liggéey boobu bala nga koo mën a liggéey li ci njëkk mooy da ngay génn Touba Touba moom li fekk yaa ngi dara lu lay lor du la fi fekk ndax moo ñaan boromam mu aaral ko ko ba mu aaral ko Touba ba dara lu koy lor du ko fekk kon faaw mu génn Touba ñaareel ba mooy booba sëriñ bu soobee mi ngi fi mu ne ko sa nijaay jii di sëriñ bu soobee li fekk mi ngi dund li nga bëgg mënta ne ndax bépp natt buñ la teg bu ma ñaanee ma teg ko loolu mi ngi am ci weeru koor Ramadan Shawwal Dul Hiqda Dul mu Muharram ba safar ñëw mu war a génn waaye mu daal di jógee ci Touba ci saasa ba mu ba weeru koor weesoo rek daal di génn Touba keroog ba mu génn Touba fekkoon na mu gërëm mag ña fa nekkoon tasaare leen jël Serigne bu Bousso del ko ci dëkk bi. wax nañ ni bi muy génn Touba ànd naag ñeenti téeméeri nit moom sëñ ñeenti téeméeri nit yi ñaari téeméeri ay mag lañ téeméeri nit yi ay waxambaane lañ juróom-ñett fukk yi ay gone lañ ñenn ñi ngi yanu ñenn ñi yori bagage ñenn ñi yoruñu dara bi mu demee ba génn Touba mu taxaw daal di gees daal di ana Mbàkke Buso ñëpp wër sëñ Mbàkke Buso ba gis ko mu woo ko mu ñëw mu ni ko waxal fere yi ni leen. dama leen a bëgg leeral dëkk bii li ma fi nekke woon muy Touba daane ko li ma fi nekke woon weesuwul bëgg yàlla akub yonent di jaamu yàlla di liggéeyal yonent képp koo xam ne nekk na fi lii ma fi nekke woon li ma fi yàlla digg dina ko jot képp ku fi nekke leneen nag la ko ci fekk sama yoon nekk ci wan nga naw Serigne Mbacke busu daal di ànd ak njaboot googu daal dem keroog ba muy dem Cheikh Mouhamadoul Fadal ak Cheikh Moustapha ak ña tolloon ci jàng da leen a bàyyi Touba ba àgg Mbàkke Baari doog leen a yónnee ñu andi leen ngir da leen a yërëmoon ci dox ba muy jóge Touba dalal na alxuraan Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Moustapha ak sëñ Omar Mbacke gelongal bañ toll sóoratu yaasin ci kër sëñ mu jox leen ay téere yu bari Cheikh Mouhamadul Fadal nee na téere yi de xamatul nu mu toll mënu ko wañ ndax bari bari mën leen na ngeen nangoo jàng te farlu ci te nangoo yër waaye gaaw gee xam ak bañ gee fàtte nekkul ci yéen ci man la nekk suñ falu neen dañ daan def téere bu ñu ubbi ba mu jeex ñu teg waaye luñ mas a yër rek dugg na ci ñoom xam nañ ko ba mu demee Mbàkke Baari nag ba muy dem diisoo na ci ak sëriñ Serigne Bousso Serigne Bousso wax ko ne ko bu ma sañoon doo dem Mbàkke Baari boobu sëñ bi xam na lim xam xam na ni lim bëgg balaa mu mën a sotti mu dem Mbàkke Baari waaye sëñ Bousso bi ni ko foofa kat dafa am ay bóor yu soxor yu fa ne ay buuri àdduna yoo xam ne ñu soxor lañ te boo fa demee xëy na mën naa am dañ la indi di jafe-jafe moo tax bëgguma woon nga dem fa waaye sëñ bi booba jaayante naag boromam te xam na ni li mu bëgg balaa moo sotti faaw mu génn dëkk bi faw mu dem Mbàkke Bari loolu waral ba mu waxee sëñ bu Buso sëriñ bu soobee ba xamal ko ni ko faw rek mënta ñàkk mu dem ca lay doog a dogu ci dem gi nag dem Mbàkke Bari sëriñ bi yàggul Mbàkke Bari juróomi weer la def Mbàkke Bari waaye diiru juróom weer yooyu dafa mel ne juróomi at ndax lu ne dafa xew mu histoire boo xamee ni bu gudd gudd la ndax bi mu fa agsee ñi nga xam ne ay buur lañ woon daan dajale mbooloo ak di ut alal bi mu ñëwee ak ni ko yàlla defal ak mbooloo mu bari topp ko dañoo foogoon ni da leen a nuru koo xamee ni day dajale day dajale mbooloo ak alal ñu am ay ñëgg-ñëgg ci moom fas yéene di ko xatal di ko tuumaal di ko jaxase ak tubaab yi tàmbali di ko bind ay di bind ay leetar di ko yët tubaab bi di ko nuróore ak Ahmadou Cheikh di ko nuróole ak Maba Jaxu ci xamal leen ni leen moom day bëgg a woote jihaat moom sëñ bi loolu moo indi tubaab yi tàmbalee bind ay leetar di ko woolu di di woolu sëñ bi ñu tàmbalee bind ay ay di woolu sëñ bi ngir mu ñëw wuy si leen ndax tuuma yooyu yi ñu ko tegoon moo tax moom ci boppam ci tontu bi mu tontu naar boobu ñuy wax Abdul Latif Abdul Latif moom am naar la woon da ko doon laaj ni ko ngir mu tënkal ko tukkeem bi nan la demee woon muy jisaa u shakoor jisaa u shakoorul atuuf fii jawaabi Abdul Latif ci tàmbali gi dañu ko gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi tukki bi maa ngi xëyee sama kër gi ñuy wax Mbàkke Baari ci bisub gaaw di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar balaa balaa moo balaa moo balaa moo ñëw foofu sax ci diggante leetar yooyu ñu ko daan bind biñ koy bind ba mu bari ci la dogo woo maam Thierno te boobu wax na ko ci biir tontu tontu lii mu doon tontu Abdou Latif ci la woo maam Thierno ni ko ngir mu dem leerali tubaab bi ngir mu dem. yóbbu ab leetar boo xam la ci nekk weesuwul sëñ bi dana leeral tubaab bi ni ko maag yow bokkuñu ay bëgg-bëgg bokkuñu it ay jëmukaay waaye bul sonn ci dajale ay ngànnaay ak def say pexe bul ci sonn ndax man fii ma ne jàmm rek moo fi nekk waajuma ngir jihaat ci jàmm kese laa ne kon nag bul sonn ci dajale ay ngànnaay leetar ba la ci sëñ bi wax lépp daanaka génn lool mu yabal maam Thierno ngir mu yóbbu leetar bi fekk na booba tubaab yi am nañu doon dox ci diggante bi di bind ay leetar yoo xam ne day mel ni sëñ bi moo ko bind def ci cachet boo xam ne day mel ni sëñ bi moo ko cachet yëg ko tubaab bi bu ñu indee leetar bi ñu dogale leetar bi tamponné ko cachet ko wan tubaab bi ni ko dafa bañ ni du la wuy ni ko li nga bëgg maanaam ma wuy si la duma ko def ba tubaab bi mer ba futt ba yónnee a arme boo xam ne bi maam Cerno di dem dara arme bi ñëw nañ ba jeewal arme bi waroon a jël sëñ bi ñëw nañ ba jeewal bi maam Cerno di dem dara borom daaru bi mu àggee ndar tubaab bi dafa gëna a mer ba futt ndax la ko yàqkat ba waxoon ci ni ko du la wuy si boo ko wooyee du la wuy si moo tax bi mu gisee maam Cerno ñu ne ko rakkama dafa mer ba fut ndax la ko yàqkat bi waxoon lii dëggal na ko ci xeeb guñ xeeb nit ku ñuul tax ndawul gouverneur moo génn laaj maam Thierno leetar bi maam Thierno nangu koo jox wax ko ne ko sëñ bi damaa waxoon ni sama loxo ak loxoom bi mu ko waxee kilifaam kilifaam génn tàllal ab palaat teg ko ngir mu teg ci leetar bi ngir ñoom xeeb nañ nit ku ñuul ba duñ ko nangoo jokkalante ak ñoom boroom daaru ni ko sa loxo ak loxo la moo ko mu doog nangoo jël leetar bi mu jëlee leetar bi interprète bi maam Thierno bi doon interpréter maam Thierno maam Thierno di ko wax ni ko nee ko sëñ bi nee su fekkee ni danga dogu ci mu ñëw mën naa ñëw waaye na nga bañ a na nga fexe ba bul sonn ci dajale ay ngànnaay ak a waaj ngir jihaat ak moom ndax moom. jàmm moom rek la jàmm rek jàmm rek moo nekk fi moom kon jërul ngay sonn ci dajale ngànnaay bi mu ko waxee loolu bi mu ko waxee loolu rek ci la interprète bi ci la ci la maam Cerno gis kanamu tubaab bi ñëgg mu xam ne li muy wax interprète bi waxu ndax bu doon lii rek jàmm war na cee mën a jóge waaye gis na ni li mu koy wax kon da ko wax leneen maam Cerno dem ba ca biti mu ut beneen interprète indi ko ngir mu waxal ko li mu wax ba mu ko waxee rek tubaab bi daal di giif wax ko ko gannaaw nii rek la la ko gisee kon mënees na ko xaar ba waxtu sàngam ca la maam Cerno génn kiñ ko booleel bëgg koo réeral ngir waxtu wi ñu wax sëñ bi du ko fi mën a agsi maam Cerno sukkandiku wa alaamatin wa bin najmi hum yahtadun ci xam mu fëlëg bi mu jàngoon ci biddiw ci la sukkandiku ba waat Mbàkke Bari ci sëñ bi xam naa bu ñu jullee ba noppi ñu tënk rek lu gàtt daal ngir xam naa mu ngi gudd incha allah waaye ginnaaw boo xamee di maam Cerno fexe na ba agsi ci sëñ bi mi ngi fekkoon sëñ bi di ko xaarandi ci ginnaaw bu mu jullee fajar waaye nag ajjuma ji jiitu gaaw boobu yi sëñ bi waajoon na nga xamoon na ni dina dem waaye xasida gi mu tënkee xasbunallahu wa ni'mal wakiilu muy amitu man yaxsimuni mina dara dafa wax tàmbali xasida ga ni waxaale bi haasihi alxasidati taassantu ashiyatan yowma aljumaati ayna azamtu ala almasiri yowma sabti baada an assanani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ginnaaw bu yonent bi sallallahu alayhi moom ni ko doxal bu ragal lor mooy dox bi mu war a dox ci gaaw bii mu jëm ginnaaw bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaree defal ko sécurité kon xamoon na ni dafa war a dem ci gaaw bi mu jëm muy ajjuma la ko def ci bi jant di bëgg ci ginnaaw takkusaan njëkk jant di fenk di di so ci la ko def daal di war a xëy gaaw nag ngir génn këram googu yi foofu nag fu tiis la ndax ci guddi goog yi guddi gaaw goog yi bi borom daaru demee ci yóbbu leetar bi bi muy ñëw dafa fekk fajar jot ba bi sëlmal fajar bay dox ci diggante kër gi ak jàkka ji di xaar maam Thiam ba mu ñëwee mu laaj borom daaru mu leeral ko mboolem lu fa xew ci la wax Cerno ni ko mu dugg jox ko fekk booba daa waroon daa bëggoon a duggaat ci biir kër gi waaye njëkk muy duggaat dafa wax ni saa borom damaa xamal ni dafa xaraam ci man may duggaat ci biir kër gi wax maam Cerno ni ko mu jox ko ay bagaasam mu génneel ko bi mu ko génnee yi nag fa la wax borom Daaru Mooti ni ko dénk naa njaboot gi yàlla dénk leen yonent bi sallallahu alayhi wa te dénk leen seen baay Cerno foofee nag dafa waxoon maam Cerno ne ko njaboot gi ma la dénk bu nu bóoñ bu ñu sàllañ bu ñu jegeñ mooy bu seen karaw yi di saq bu ñuy géje lekk ndawal te bu ñuy bu bu seen bu seeni yére di xotti ko ndax ki ñuy yar loolu lépp day jeexital ci moom da koy yóbbu ci mbaado la sëñ bi bëggul lool du yare noonu te loolu lépp borom daaru ma daana ko sàmm moo tax ba muy génn nag waxoon borom daaru ne ko loolu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ko wa ja'alal muxtaaru sallallahu alayhi fil aali wa mawaalahu lahu ayaaban maanian min ad darar wa xaala imshi la taxsha darar yonente bi sallallahu nee na ko demal te bu ragaloo ndax moog yonente bi yonente bi da koo defal sécurité aar ko ànd ak ñun ba noppi mu ànd ak waa ahlu badar ndax waxtu yi muy dem ci lay woy xasiir ak asiru asiru ma al abraari ayna asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru maa ngi dox ànd ak ay noon te waxtu yu may doxe ñoom ñi ma ñoom ni ñu ngi jàpp ni man ab prisonnier la ñoom kon dañoo waroo ndax sëñ bi booba moom ahlu badar la àndal di dem ñoom ñu jàppee ko prisonnier ñu jàpp ni moo ko jàpp te sëñ bi moo leen jàpp ndax nanguwuñu woon nanguwutoon a deltu gannaaw ci ànd gi ji ko tubaab bi jàpp foofee nag la wax waxam ju tiis jooji ni xarooru xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi alladi anhu madihu xasiru samay kët samay kër wéet na samak njaboot tasaaroo na ngir tagg gi may tagg yonent bi sallallahu ma réyal ko ñoom ma tuutal ko ñoom ñu réyal ko tagg gi may tagg dama jàpp ne lu tuuti la ñoom nag ñu réyal ko kon foofu mënees na fay def jàngat ngir jeexal waxtaan mooy dem googu mu dem ànd ak tubaab yi mën na sa jël seere ci ñim mu bokkaloon réew mi te ajuwuñ ci yoon wi bokkuñ ci tariixa mooy sëñ Muhammad bu Kunta bu Njaasaan bi ñu yóbboo sëñ bi dafa am ku ñuy wax sëriñ ma fari Njaay Golbe bokkoon ci mag ñi dafa jóg ñu bari ci ñoom bi sëñ bi demee noonu ko sëñ bi waxe ne ay këram wéet na ak njabootam dasaaroo nañ ñu bari dañoo jaaxle ndax sëñ Tuubaa ku ko miin ba xam dootoo bëgg a teqali ko ak moom kon bu demee jafe-jafe bu rëy dina dikkal mbooleem ñi nekkaloon looloo waraloon ñoom ñu am jafe-jafe ndax kañ daan gis mu leen daan maraleeg yàlla kañ daan gis mu mu leen mu mu leen di yar di leen tarbiya neexit bi sëñ Tuubaa neex ci seen kanam bu leen wanee gannaaw njàqare gënu ko rëy ci ñoom loolu waral ñu bari nag tàmbali am njàqare dugg àll bi sëñ ma fari njaay golbe nag dafa dugg àllub njaasaan bi nee nañu def na fa at moo xam ni bu lekkee xobi garab yi la bu naanee ndoxum dégg la daanaka jëfandikoo wut ak ñam ba ni demee ci sëñ Mouhamad Boukounta njaasaan nee nañ keroog bi mu ko fekkee mu toog da ko fekk sëñ Mouhamad Boukounta toog di waar taalibe yi mu toog ci ginnaaw ba mu àggal ginnaaw xàmmewu ko ci mbooloo mi mu woo ko mu ñëw mu ni ko ana bàyyi ko mu wax ko ko mu ni ko lan moo doonoon sa yitte mu ni ko man ne damaa amoon jaaxle mu ni ko lu doonoon sa jaaxle mu ni ko dañoo jàpp Sëñ Tuubaa yóbbu ci géej gi mu ni ko yow de ndekete ci borom bëti kese yi nga bokk suñ Sëñ Muhammad Bugunda ni ko yow de ndekete ci borom bëti kese yi nga bokk xanaa xamoo nii dafa am woote bu suñ borom woote woon nee na ñëpp daje mu ni leen li ñuy wax njariñ laa bëggoon jaay ko ci kenn ci yéen ba ku soxlaati njariñ dem ci moom nee na bañ dajee ba wax ba mu wax loolu nee na ñëpp yëkkati seen loxo nee na waaye ba mu waxee nattu ya ñëpp a bank seen loxo ba mu des Sëñ Tuubaa Sëñ Maamadu Bukunta nii booba de la muy ñàkk ñàkk solo la muy ñàkk sax ñàkk solo fekke woon naa jotaay boobu daan ni boobee nag laa geestu gis benn ruq ma xam ne liggéey bii mu sóobu kenn du ko soobu te àggale woo ko nee na ma geestu gis benn ruq rek ni sëñ Tuubaa may ma ruq bi sëñ Mamadou Boukounda nee na sëñ ma fari lépp loo gis ci man ci barke mbaa nga gis ko ci man ci taalibe nee na maa ngi ko jëlee ci barkeb sëñ Tuubaa boobu loolu sëñ Ahmad Njaay Rasid nettaliwaat na ko sëñ bi ba sëñ bi naan ko dindil ñàkk solo bi ndax foofa ku ñàkk solo dafa teew loolu nettali ci